rëg rëg bu ñaax ñun ñooy rëg rëg borom mari jaral na ma ko uppaajam waaw jeex na tàkk guy gi de neewoon na ñooñu ñuy uppaajam moom guy gi du ci bokk ah loolu ba ñu yegg ca yeggaguñu ca fi mu nekk ci wër-wërloo bi la ñu toll wër-wërloo mooy lan père wër-wërloo bi maanaam daal jàkkaarloo ku ne wax dex sa morom foofu la ñu yegg si mais yegg guñ ca foofu ngay wax guy gi nee na sempi yëkkati du suuf dana am ah waaw moom de xalaatam la wax rek waaye ñun li ñu indi du ñu dem guerre di ko wax dañ koy nëbb ba gis ba ñu def ko. père combat bi combat bu stratégique la. oui tombeek rëg-rëg gën a violent. Hmm. gën a am stratégie de combat ndax MMA bi muy def. waaw ah. ak guy gi dafay mbër moo xamante ne que pour mu bëreeg yow foog mu taf la liggéey sa kaw. Hmm. ñu daal li ma la waxoon moo ci nekk. Hmm. kenn du dem guerre di wane say arme li am solo nag mooy waaj nañu ànd ak ñi ñu war a àndal ñëpp. di ñaan yàlla may ñu ndam ca bis ba. foofu laa mën a yem.